ci aljuma muy fukk ak juróom-ñaar ci weeru sawal dëppoog di 1445 depok ci weeru tubaab 26 avril 2024 ñu fas yéene ànd ak yéen ci busra TV di ànd ak mbokk yi ci émission bi tey jii di jaar jaari Serigne Touba xaadalahu llahu lo waxtaan wi ñuy waxtaan ak yéen nag ñooñu ko fas yéene sukkandiku ci téereb sëriñ alxaaji mbàkke bi ñu wax safatu seer fi sirat xadimin xayril bashar di wax ne sëriñ tubaa day koo xam ne suñu boroom moo ko def muy yërmande ci lépp ak ci ñépp rawante na ak senegal ak ñoñam ak Touba ak li ko wër muy koo xam ne njariñ la ci mbooleem jullit yi ak yaafar yi ku ne ak na mu doone ci njariñ ba tax na kon ba tax na ku ne war naa xam ni mu doone sa njariñ ak noo ciy jariñoo te loolu li koy xamle mooy yër ay jaar-jaaram ndax ci yër ay jaar-jaaram ci ngay xam mooy kan ak lan moo ko taxoon a ñëw ci àdduna ak nan la nekkee yërmande ci mboole mbindeef yi ak nan lañuy mën a jariñoo ci moom Sëriñ Tuubaa nag bari na lool téere yuy nettali ci moom waaye yu ci ëpp arab la yenn yi wolof la waaye daa ñàkk ab nosu ba boo ci bëggoon a xam lu la doy doo ko man muhammadu abdullahi al alawiyu bnu aliyu taalif na ab téere ci jaar-jaari sëriñ tuuba moo tudd alminaxul miskiya fi siratil mbakkiya ci jamonoy sëriñ bi la ko taalif wax nañu ne sëriñ bi yër na ko waaye arab la sëriñ Mouhamadul Amin Diop dagana taalif na ci téere bu tudd bu tudd irwa un nadim min azbi xubbil xadim néew na bu ko gën a jotal moom it arab la sëriñ Basiru Mbàkke taalif na ci téere bu tudd minanul baaxil xadim fi siirati cheikhil xadim moom it arab la ba tey sëriñ Baara Mbàkke taalif na ci ab téere boo xam ne arab la ba tey sëriñ Mouhamadul Mahmoud Ñang تعرف نجي نياري تيري بن بي موتد النحج الخويم في سيرة الشيخ القديم محمد عرب لا بنن بي موتد جار جاري بروم توبا موم ولف لا سيري عبد الرحمن لو مو سيري مصطفى لو تعرف نجي تيري بوتد الذكرى المئويه لنفي شيخ القديم boobu arab la sëriñ Moussa Ka taalif na ci téere boo xam ne jasaawu sakurul atuuf bi nga xam ne moom la sëriñ bi def moom la way ci wolof téere yi ma tudd yépp ginnaaw bi ma leen yéree ba noppi laa jug bi awnillaahi wa husni tawfiq yi bëgga dajale téere yoo xam ne téere boo xam ne wolof lay doon ci waxiin wu yomb fas ko yéene sukkandikoo ci téere yooyu ma wax léegi nga xam ne ci ñi leen taarif ñi ëpp fekk nañ fi sëriñ Touba jaxasoog moom lu yàgg ku ci mel ne Mouhamadou Abdullahi al Alawi ak Serigne Basiru ak sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana maa ngi ñaan yàlla sama boroom mu may ma téere bi doon liggéey bu sell ci liggéey sëriñ Touba yi doon loo xam ne dañ ci am lu kawe suñ njort ba keroo ñuy tàbbi àjjana bi jaahi cheikh al kon mbokk yi comme nooñu ne leen ko waxee li ñu njëkk ànd ak yéen mooy solos nettali jaar-jaari sëriñ bi bu ñu nettali jaar-jaari sëriñ bi yow murid bi koy déglu wala yow jullit bi yan jeexit wala yan jàngat nga war a def ci loolu kon nit ki bu ñuy wax jaar-jaari sëriñ bi war naa am jeexir yum def ci yow ba tax boo ci jógee nga jaajjoo si xam ne déglu gi nga ko déglu am na fu mu la yóbbu loola tax ma ne sëriñ Tuubaa xaadalahu llaahu maxtaara lahu lim def lépp ak fi mu jaar fépp bu ñu koy nettali war naa am jeexit bu mu def ci murit bi bu bokk lak yéemu ak jooy jeexit yi boobu mooy mu xool ne Sëriñ Tuubaa xaada lahu laahu maxtaara lahu ba muy jaar fii fépp bëggul lu dul taxawal lislaam taxawal islaam rekk moo ko taxoon a jóg ak baatu sunu boroom nekk lu kawe kon bu demee ba loolu antu waruma nekk kuy sàggane lislaam ak di ko doyadil li ma war kay mooy ndegeem sëriñ tubaa xaadalahu laahu maxtaaralahu xàll na yoon wi ba noppi ma sóobu ko tey xool lim daa def ma koy roy te bañ a wax ne Serigne Touba xaada lahu laahu maxtaar lahu kenn mënu koo rey ndax suñu boroom yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama moom lañu royloo moom la wax ne ñu koy roy te Serigne Touba xaada lahu laahu maxtaar lahu moo dondu yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam te sëriñ tuuba xaadallahu laahu maxtaarallahu nee na wàccoo na maag ngeen gis ma wax ngeen dégg jëf ngeen gis man nag ma wax ne gisuma ci mbindam sëriñ tuuba xaadallahu laahu maxtaarallahu lu wuuteeg alxuraan wala lu dul li ci alxuraan gisuma ci jëfam lu wuuteeg sunna yonent bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallam degguma ci waxam lu wuuteeg lislaam mbooleb lim wax leer na ak lim bind ak lim def kon loolu mooy li nga xam ne kii teewlu waxtaan wi wala muy déglu jaar-jaari sëriñ bi war naa koo dolli ci moom ak jàjji ak soññu tam war a xam ne kii masalan boo déggee ñu ne sëriñ bi julli na ci géej gi julli ci géej googu ba mu doon si ba mu doon kéemtaan ci yow waaye na fexe nekk ci yow ba waxtu julli bu jot te amoo ngànt nga daal di koy am farlu dem julli ji ko sëriñ bi déggal na ay ndoonam loolu bu mu doon kéemtaan ci yow da fexe ba yow it ku la tooñ nga góorgóorlu ci man koo baal kon ginnaaw loolu dañuy ñëw ak yéen ci njëkk feeñuk sëriñ bi ginnaaw bañ leen waxee yenn téere yi nga xam ne bari na ñi nga xam ne taalif nañ ci sëriñ bi yenn yi arab la yenn yi nekk wolof waaye fii dañu ko dajale ngir tënk ko tënk koo xam ne képp koo xam ne ni bëgg na cee jariñu insha allahu taala mën na cee jariñu bu baax a baax a baax kon ñu wax ne balaa ñu ñëw ci feeñu sëriñ bi dañuy wax njëkk feeñu sëriñ bi ñu ne njëkk sëriñ tuba di feeñ ci zahir jamono ju doy waar la woon jamono ju doy waar ndax jamono ngur la ak ndamu ak naxaate ak jaay doole alquran sax daa nañ ko wattu waaye dañ ci daa puukarante ak njabarante ak njabarante ak xeex xam-xam itam -xam amon na waaye daa wuñu ko jàng ngir yàlla suñu borom dañu ko daal jàng ngir bëgg daraja sëriñ musaaka radiallahu taala anhu mi ngi junj dara ci loolu bim ne lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sawu jant fépp mel na lambay kenn amatul xasdu li wajhillaahi kaagi foore fafdi jaanillaahi nga xam ne la gënoon a doon daraja ci jamono jooju mooy doon buur walla ngay mbokkam walla ngay ab attakatam walla ngay ab dagam su ko defee nga mën a am ak wóolu ci sa bopp ak ci sa njaboot lu dul loolu rekk nga am ak kóolute ci sa njaboot walla ci sa bopp day doon lu jafe lool nit ñi ragal ragalatuñ yàlla tubaab yi lañ jàppoon def leen kilifa nga xam ne ak wóolu ci sa bopp ak sa njaboot mënoo ko am ludul ne dangaa ànd ak buur yi wala nga bokk ci seenum njaboot tubaab yitam yilif réew mi am fi doole lool nit ñi ragal leen lool ba àgg ci ku gis ab tubaab day mel ne malaaka yàlla la gis loolu la sëriñ bi di junj ci way wii di wax naan wa min humu wa min humu maa in raa nasraani yaxsibhu min malaaiki rahmaani nee na ñooñu saa bu ñu masaa gis ab tubaab dañuy jàpp ne malaakam yàlla la waaye loolu li mu si jubli mooy wekk gi nga xam ne ni moom lañ leen wekk ak hayba ji nga xam ni mom lañu mom am ci nit kon mo na nga xamne ab tubab buñ ko massa gis dañuy daw ngir ragal ko ci seen alal ak seenu njabot kon jamono ji jamono jooju njëkki feñu serigne mi nonu la melon. ginnaw lolu ñu xamle ñu indi ñëw ak yéen ci feeñuk sëriñ bi ginnaaw bi ñu njëkk dikkee ak yéen ci njëkk feeñuk sëriñ bi ñi nga xam ne fekkoon na ñuy jàng ni ñu waxee ne sëriñ bi nee na fekk na ñuy jàng alxuraan fekk na ñuy jàng xam-xam waaye lenn lu ci ne nañ ko daan defee moom dëppoo wut ak sunna dëppoo wut ak islaam daa nañ jàng alxuraan di ko mokkal di ko puukarante ak di ci wut daraja na jàng xam-xam tamit ngir rawante ak ngir daraja sëriñ bi nag ba mu ñëwee lii lépp dakaa soppiwaat loolu waral lil Mustafa nawaytu ma yu jaddidu zundatahu xarra wa inni ahmadu kon ñu ñëwee yéen ci feeñuk sëriñ bi sëriñ tuba mi ngi gane àdduna ci Mbàkke Bawal loolu bindkat yépp maase nañ ci feeñu sëriñ bi ci Mbakke Bawal bindkat yépp maase nañ ci waaye fan la ci Mbakke Bawal buñ ci duggee du ñàkk ak wuute moo tax nu bàyyi ko loolu mi ngi doon atum 1270 ci gàddaay gi loolu itam bindkat yépp maase nañ ci am na ku ne كوي لأن قد ولد القديم ما قد صرع سريعة المختار عام صرع لول موي أتم صرع موي لول موي لسيرين بيغانا أدنى أتم صرع لسيرين بيغانا أدنى تموي أت نتدو تولوك أتم 1852 wala atum 1853 ci li serigne Mouhamadul Mahmoud Ñang wax ci terem bu tuddu jaar-jaari borom touba xatu ñent muy xatu kaat bo fa deme ce terem serigne mohammed Ñang safha numéro 4 dang ko fekk lolu waye lam wax ca jul xawim moom mooy 1852 rek kon moom mel ne na loolu la gën a wéral ci ñaari waxam yooyu sëriñ xalil mbàkke moom lam wax ca madrasatu sayxul xadim madrasatu sayxul xadim mooy 1851 daa ne am na ñuy wax 1852 kon moom mel na na at ma njëkk mi la gën a wéral muy 1851 Abdourahman Lo moom li mu wax mooy 1853 wala 1854 waaye wax yu bari yooyu ak wóote yi bariwul njariñ ndax gàddaa gi moo ci am solo te ñépp dëppoo nañ ci ban bis la gane àdduna loolu Abdurahman loo rekk laa gis mu wax ko nee altine la tolloog fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu kan mooy waajuram wu góor sëriñ maam moor anta sali mooy waajuram wu góor maam moor maam xabibullaahi mooy waajuram maam xabibullaahi mooy baayam maam xabiballah muhammadul kabir mooy baayam muhammadul kabir maam xabiballah mu mag ma mooy baayam muhammadul kabir mi ma waxoon ci ginnaaw moom lañuy wax maam maharam moo sanc mbàkke bawal ci atum 1192 ci gàddaay gi moo tolloog 1789 ci tubaab ku ñu wax am xamar ngóone sabel moo ko ko dogaloon waaye taxul ma man faa dëkk moo taxoon mu dëggal fa mu dëkkloo fa ab taawam mu muhammadu farimata loolu mu ngi ci irwa un nadim bu sëriñ xamadu lamin jóob dagana kan mooy waajuramu jigéen waajuramu jigéen mooy soxna jaariyatullahi Buso sëriñ Muhammadul Mahmud ñang nee na Maryama Buso la tudd ñu koy woowee noonu soxna jaara nag askanam mi ngi bokk ci tukkulóor yi nekkoon goleer ci Fuuta Toora nee nañu sërif la ndax askanam mi ngi dayoo ci sayiduna xasan doomi sayiduna aliyu karamallahu wajhahu kon loolu mooy li nga xam ne moom lañu indi ci feeñu sëriñ bi wax nañ at mi nga xam ne moom la gën a àdduna dëppoo ci weeru gàddaay gi ak ci weeru tubaab mu mel ni weeru ci ci gàddaa gi ak wuute amu ci ñëpp dëppoo nañ ci mu mel ni ci weeru tubaab am na ñu ci dëppoo waaye mel ni wuute gi solantuwut ay benn at ñaari at indi nañ waajuram muy Mamoor Anta Sali waajuramu góor indiwaat waajuramu jigéen mi soxna jaaratullaahi bu Buso kon ñu fas yéenee ñëw ak yéen mooy wàllu njàngam wàllu njàngam sëriñ bi kenn waxul ci ñaata at ci la sëriñ bi tàmbali njàng njàngum alxuraan waxuñ ne si nàngami at wala sëriñ bi mu am at sàngam wala bi mu toll ci nàngam si la sëriñ bi tàmbali am njàngam waaye xam naa ne ci waxtu wu teel la xam naa ne loolu ci waxtu wu teel la ndax bi muy jël wérdul xaadir moom sëriñ bi fëkk at ak ñaar lay war a am te booba fekk na mu mokkal alxuraan nijaayam lenqe ju ñuy wax sëriñ mbusoobe moo ko dalal ciri sëriñ muhammadul amin jóob dagana wax waaye tuuti la ko jàngal jox ko ku ñuy wax tafsir mbàkke ndumbe tafsir mbàkke ndumbe moom mi mi nga xam ne mooy nijaay soxna jaara tullaahi Mariama Bousso moom it nijaayam lenq la sëriñ bi sëriñ Bousso bi nga xam ne mooy nijaayam lenq ci moom boppam moo njëkk a dalal jàngal ko tuuti si ma jox ko sëriñ Tafsir Mbàkke Ndumbe moom mu nga xam ne nijaay lenq la ci soxna jaaratullaahi Mariama Bousso Tafsir moomu ci jamonoy noor Mbàkke Bawal la daa ci jamonoy nawet mu nekk Jolof moo jàngal sëriñ bi ba mu toll la taj danna asad dannaasi booba la faatu bi nga xam ne sëriñ mi ngi toll ci la tadi dann asada naasi ci la tafsir mbàkki ndumbe moomu daal di làqu wuy ji boroomam radiallahu taala anhu sëriñ bi dellu ci maam Mor Anta Sali di fa àggale am njàngam booba maam Mor Anta mi ngi saalu bi mu àggalee alxuraan ci waajuram ba noppi la tàmbali di jàng xam-xam ba jàng lu bari ci moom booba itam wax nañ ne sëriñ bi daa farlu woon lool ci njàng ba noppi yàlla may ko am xel mu tijjiku mu yeewu lool macha allah moo xam ne yéem nañu bari wax nañ ne itam daana def ay bayit sëriñ bi ci ak njëlbéenam mu tolli ci njàng daan tàggatu ci ay bayit di ko yët xaadi kala mu ko topal ba mujj xaadi da koy wax deel andi ma koy mokkal waaye mënatuma topp nga xam ne raw na ko sëriñ Mahamadul Mahmoud Ñang nee na sëriñ Tuubaa mësta laxas benn yoon di jàngi ndax foofu mu nekkoon fi la ñépp daa laxas di jëm ci muy kër Maam Moor Anta Sali kon sëriñ bi li wér mooy wax nañu ne li sëriñ Mouhamadou Mahmoud Niang wax mooy sëriñ bi mos laxas di jàngi ndax moom fi mu nekkoon di jàngee muy daaray sëriñ maam mu ànd sëriñ fi nit ñi daan laxas nit ñi ñoo daan laxasee feneen di ñëw ci moom di jàng ci foofa kon looloo tax ñu ne sëriñ bi moom li wér mooy masuta laxas di jàngi kon sëriñ bi ci biir njàng moomu demoon na ba ñu bari ci dongay sëñ Mamoor Anta Sali ci moom lañu gën a xemmeem am njàng mel na ne dongo yi nga xam ne ñoo nekkoon ak waajuram mu baaxu sell woowa muy Mamoor Anta Sali ñu bari ci njàngee sëriñ bi ci lañu gënoon a kon ngir lam ngir leeru làmmiñam loolu lañ ci taamu woon sëriñ bi da daan wax lu leer nee na looloo taxoon ñu bari moom lañu tàmm woon di jàngee ci moom mu ne te sëñ Mamor daa baroon lool wax nañ ne Mamor daanaka daana ko jàngal bind boo xam ne ka ko war a jàng ñëwagul ngir kooka bu xëysee mu jàngal ko ñu wax ne sëriñ bi sëñ Mamor Anta Sali daana ko jàngal bind boo xam ne sëriñ bi moom ci boppam egseegul ci bind booba waaye sëñ Mamour Anta Sali la ko daan jàngal ngir ki nga xam ne ni moo war a jàng bindu booba bu ñëwee sëriñ bi mën ko ko jàngal kon loolu day tegtale li ñuy wax ne sëriñ bi ku ñëwoon am xel la fa tabaarakallaa day mel na kon loolu dalil la ci ne kon loolu lu wér wér la te moom tollul foofa booba sëriñ bi tollutoon foofa loolu sëriñ Mouhamadou Lamine Diop moo ko wax ci irwa na dim kon ci diir boobu ci la taalif moom sëriñ bi kon sëriñ bi mu nekkee ci daara Maam Mor Anta jàng ba sori lool cim xam-xam ba tàmbalee jàppale si Maam doon Anta ci mu njàngale ci diir boobu nga xam ne mi ngi ci daara ji ci sëriñ bi taalif Mawaahibul Quddus bi nga xam ne sëriñ mi ngi ci way téere boobu ñuy wax Ummul Baraahin moom la ci sëriñ bi way wax nañ ne sëriñ maam Mor Anta Sali jàngal na ko ñaari doomam sëriñ Cheikh Coro mbakke ak sëriñ Afiya ba tey ci boobu jamono jooju ñu ne ba tey ci la sëriñ bi taalife al jawharun nafiis ak mulayinu sudur waaye masaalikul jinaan ming ko woye Mbàkke Bawal am na ñu ne da ko tàmbalee Mbàkke Bool eggale ko Daaru Salaam nee nañu daana dem njaañ ci benn naar bu ñuy wax Muhammadul Yadaali daana fa jànge bayaan ak manteex naar boobu barabam ma nga njaañ ziar naa ko walillaahi alhamdu diir bi bépp nag Sëriñ Tuubaa yéeme na waaye weesuwul jàng ak jàngale ak taalif ak jëfe xam-xamam ak topp ndigali waajuram maam Mor Anta Sali ci loolu rek ci la sëriñ bi nekkoon sëriñ ba Basiru wax na ci Minanul Baaxil Xadim xëtu ñeent fukk ak juróom benn 46 sëriñ Tuubaa mas naa nettali ne Sàmba bay Njaay mi nga xam ne moo mujj ci buuri Kajoor yi mas naa ñëw ci sëriñ maam moor toog ak moom ci kaw lalam daadu koy woolu sëriñ maam moor yeb la ñu woo ko mu ñëw mu ne ko sàmbalaw bi mii daa bëgg nga ànd ak moom dem ci këram mu jàppe la ab sëriñ nga mel ci moom ni ma mel ci nijaayam lajjoo nee na mu ne ko ba mu génn kon daldi dellu ci néegam bi sàmbalaw ba génnee fekk mu toog cib der di jàpp sëriñ bi wàcc jox ko ngir mu daarante ak moom waaye nangu wuta nangu wucaa toog moom sàmbalaw bi mu tàmbali di ko waxaat waluk dem gi mané ko xalaatuma dem di fi wàcc nga xamné dañuy fay ñew ngir yalla dañuy fay ñew ngir xamlu seen diiné mu ne ko waaw bu fekkee loolu la lii aw naaru gor bu baax la maa la ko jox ginnaaw ba sëriñ bi waxee lii du xalaatuma dem ngi xam ñëw fi ñëw ngir di sàq xam-xam ngir yàlla dinañ fi bàyyi di dem feneen ngir yil la mu ne ko ginnaaw looli la lii aw naaru gór bu baax la maa la ko jox nee ne sëriñ bi jël ko ngir maslaa bam demee fekk am na ñett ñu ko topp ñoo xam ne ku ci ne amel na ko borob téeméer nee na mu téye leen jaaylu naaru gór wa ci ñett téeméer seddal leen ko ñu sant lool ci biir nettali bii danga ci xamee lu bari ci dig ci ci déggal ci déggal gu sëriñ bi déggaloon Mamour Anta Sali ndax noonu mu mu ñàkk ndax ndax ñooñu nga xam ne si la ko noonu mu ñàkk tontoo ci kanamam dara lu dul bañ koo déggal lu ko naqare ak bañ a wuuteeg moom da ci xamee itam ay tegginam yu bari sëriñ Mamoor nag laata muy e nelaw la sanci mbakke kajor waaye ñaari at rek la fa am daadi nelaw kon ñu ñëw ak yéen ci nelawuk mamour ant sali mu mel ne loolu insha allah fi la ñi mooy bu suñu bunt bu njëkk ci li nga xam ne bunt bi nga xam ne ni fi la ñi si jotaay bu njëkk ci suñu waxtaan yi fi lañ ko yemale ci nelawu Mamoune Anta Sali ak la ca xewoon ginnaaw gi ñu xamee ne comme jotaay la loo xam ne waxtaane sëriñ bi ak jaar-jaar sëriñ bi du loolu loo xam ne benn jotaay lay nekk wala ñaari jotaay waaye des koy def ay jotaay jotaay incha allah bañ gën cee mën a jëriñuwaat lu bare bare kon nelawug Mamoune Anta Sali Mamoune Anta Sali mi ngi nelaw ci tamxarit atum 1300 ci gaday gi lolou mi ngi tolok 1880 ci judduk sayyidina Isa alayhi Salam 82 na gaday gi xanaa bu fekke ci déggalu mo geussu wat ko waye ci ci ci ci ci atum Seydina Isa waye ci ci tamxarit atum 1300 ci gàddaay gi moom wër na fi leer na fi nàññi waaye nelaw nelaw si la sëriñ bi sëriñ bi sëriñ Mamoon Sali ci at moomu ci la nelaw sëriñ Tuubaa ñëw na ba ci wetam tari alxuraan ba mu jeex guddik talaata la nelaw loolu sëriñ Muhammadul Amin Jóob moo ko wax ci irwa un nadim loolu mi ngi wax ci xëtu ñaar fukk ak juróom-ñaar muy xëtu 27 ñu rob ko deqale ginnaaw bi nga xamee ne sëriñ Mamour Anta Sali ci la nelawee ku ñuy wax Tayba Muhammad Ndumme Maar Sill moo ko jullee ba mu ko jullee ba noppi la wax ñafatee woon ñépp ngeen déglu ma am lu ma leen wax balaa ngeen a dem daadi jaal ñëpp daadi ne sëriñ bàmba jegesel sëriñ tuba ne ko maa ngi dégg mu ne ko damaa bëggoon buñ jógee fii jaar ci lat joor nga fasanteeg moom wëllëre wasa bàyyi fasante woon ak moom mu teg la fa mu tegoon sa bàyyi te loolu dana baax ci yow sëriñ bi sant ko ci lim wax ne ko waaye dem ci kër yi buur ngir dara rey àdduna jomm naa loolu bi sëriñ bi waxee lii ñu bari ci mbooloo mi dañoo jaaxle ndax lu mel nii masalat bu doon jamono ji ku ñu wax ne dañoo bëgg ñu fal la benn poste ñu jox la ministre walla jox la benn poste woo xam ne nii ràññ ko la lool nga daal koy gàntal loolu dañ lay dana jaaxal nit ñi waaye dana am ñoo xam ne du leen jaaxal waaye faaw am ñoo xam ne dana leen jaaxal nag ñi nga xam ne xëy na seenu mbir dañ ko aj ci àdduna moom loolu dana leen jaaxal waaye sëriñ moom fekk gis-gisam daa nekk lu kawe gisutoon lii nit ñi gisoon waaw ndax bu gis-gisam romb na lool moo tax sëriñ bi sant ko ci lim wax ne ko waaye dem ci këri buur yi ngir daray àdduna jomm naa loolu ba sëriñ bi waxee lii ñu bari ci mboole mi dañoo jaaxle ndax jamono yooyu am lu mel nii daa jafe ba ci jamono yii sax am lu mel noonu jafe na <laughs> ndax dem ci ànd ak buur yi xëy na loolu ak jàppanal bu bari la ci àdduna ci ki nga xam ne mbir mu àdduna rek a tax a jóg waaye ki nga xam ne ëllëg mooy mbiram am na gis-gis beneen bu bokkut ak li nit ñi gis moo tax faaw rek muy wuteeg nit ñi ab gis-gis am ñu naa ab dof la am ñuy wax leneen ca booba ci jamono yooyu nag sëriñ sëriñ bi wax ci la sëriñ bi waaye xasida gi muy xasida gi muy xaalu li yarkan li abwaabi salaatini taxos jawaaisa tuxni kulla ma xiini فقلت حسبي ربي واكتفيت به ولست راضيا غير الحلم والدين ولست أرجو ولا أحصى سوى ملكي لأنه جل يهنيني وينجيني بخسي دقي جيح سين بخسي bi xasida gu raglo la xasida goo xam ne nga aw kayfa yabaasu ni xubbal xutaami ila jiwaari man dooduhum rawdu sayaatin de wax si xasida gi lu bari in kuntu saa xasanin aw kuntu saa watarin nga xam ne sëriñ day mel na moom léppam si si borom la koy jëmale si lay waxee daan fekkee nit ñi dañuy wax naan man mii bàyyee gi ma bàyyi mbirum àdduna ak ñooñu àdduna bàyyee gi ma leen bàyyi jëm ci sama borom fekke man lolou moy sama ayib man ayib joju man baxna ci si man ayib joju man baxna neena su fekke lolou moy ayib ci mom ayib ju ayib joju ayib ju am solo la ayib ju wóorusu la ayib ju ganjeru la fasaaka haybun nafisun neena su fekke ayib man li ñu wax dama ayib moy dama dof wala dama wérut ngir ne dama bàyyi mirum aduna jëm ci sama borom neena na fasaaka aybun nafisun waaw neena kon ayib joju ayib ju wóorusu la ayib ju ganjeru la kon nit buñ la buñ la ayibal rek xoolee ci liñ la ayibal lan la doon su fekkee lañ la ayibal moom lu jëm ci sa boroom la sag jub sag jaamu yàlla fekk sàmmonte sag wax dëgg su fekkee ci loolu lañ la ayibal xamal loolu ayib ju baax la nga jël ko fekkee nag lañ la ayibal moom ci sag mën a naxaate la ci sag jëwu ci sag mën a dugg ci lu su yoon nekkul nga jéema xam ne ayib jii du ayib ju baax nga daal di maytu ayib jooja kon sëriñ bi noonu la ko waxee ba xasida gi jeex di wax ne nit ñi ngi mën a demal ci buntu buur yi kon danga am loo jàpp waxtu wu ne ma ne leen yàlla suñu boroom doy na ma te doyloo naa ko fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi fa qultu xasbi rabbi waktafaytu bihi xam daa daa boole ñaar yépp doy na ma te doyloo naa ko xam yàlla mën na laa doy waaye doo ko doyloo waaye doy na ma te doyloo naa ko kon day mel ni ñu boole na ñaar yépp mu ne yàlla doy na ma te doyloo naa ko ñaari mbir la yu wuute xasbiya waktafaytu fa qultu xasbiya rabbi waktafaytu bihi mu ne bëgguma lu dul xam-xam ak diine daan ne ragaluma ku dul sama borom wala su arju wala axsa siwa maliki li tax loolu moom ragalul ku boromam yaakaaruma ku moom ndax bu ma soxlaa moo koy faj moo tax man duma yaakaar keneen ku moom te moo may musal nee na ginnaaw loolu yi nag la nit ñi gën a jaaxle ci man mooy ci moom sëriñ bi ci la nit ñi gën a jaaxle ci moom nag ci mbiram mu ne waaye teewul mi ngi jàngale ni mu ko daa defe ci jamonoy Mamour Anta Sali ca loola nekkoon woyale ca si nii nga xam ne nii mooy sëriñ bi si loolu la nekkoon mooy jàngale ak yar ak taarifi téere dëgmal boroomam bañ kaa booleeg lenn lu dul moom kon ginnaaw loolu yi dañu ñëw ci tàmbalik yar waaye loolu mooy fi nga xam ne fi lañ bëgg tënk waxtaan yi ci yeneen jotaay ñu indi ci tàmbalik yar sëriñ bi loolu day nekk bunt bu yaatu sëriñ bi rek suñ borom waxee ne ko yónni salaa waxee mooy rabbi asxaabak bil himmati daanaka fi la yoon wi tàmbalee muy atum 1302 kon lii ak laytaay la ci li nga xam ne moom lañu fas yéene ànd ak yéen ci jaari jaari Serigne Touba xaada lahu laahu ki ngeen àndoon ci kàddu yi mooy Serigne Moustapha Bassirou Diop al imaam ci jotaay bi ñu àndoon ci ak Serigne ñu ànd ak moom di sant ko ci jotaay bi di bég lool. ñaan suñu borom mu defal ak dégg ak topp wa axiru daxwaana an alhamdulillahi rabbil alamin kon lii moo nekkoon loo xam ne ni moom lañ fas yéene won a ànd ak yéen ci jotaay bi nga xam ne mooy jotaay bu njëkk ci jaar-jaari sëriñ bi moom mooy téere bi ñu fas yéene ànd ak yéen muy téere bi nga xam ne sëriñ alhaaji mbàkke xaadimul xadim moo ko def muy téere bi safatu seer fii séerati xadimi xayri basar téere boo xam ne nii ginnaaw bi nga xam ne si la saytu téere yépp mooy téere yi nga xam ne ni moo siiw lool yi nga xam ne mooy marjax di masaadir yi nga xam ne ni moo gën a ràññeeku ci téere sëriñ bi moom bi nga bu ko gëstoo ba noppi ci la ànd nag ci la defaat téere bii nga xam ne mooy safatu seer fi serati xarit xayri basar daal ci tënk te lépp da ko def ngir ay buntu buntu bu mu jàll indi beneen buntu ba sëriñ bi dem si géej gi ak bi mu ñibbisee ba sëriñ bi biñ ko noppé gess ci sahir nga xamné loolu lepp day melni sëriñ bi sëriñ mbak mbàkk khadim ñoo ñooñu koy ñaanal suñu borom yalla na defal tawfiq ta gëna dëgeural ab liggéeyam ci njàngalem téré yi xam-xam ak téré yépp rek ñu ngi ko ci sant bu baax di ñaanal sëriñ muntaha Basir suñu borom yagal ka fi ta defal ko ak wër di ko ñaanal mbokki murit yépp mbokki talib yépp yalla ñu yalla defal ak dégg ak top والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرة جار جاري برم توبا للمصطفى نويت ما يجدد سنة الخرى وإذن أحمد للمصطفى صيرا جار جار برم توبا للمصطفى نويت ما يجدد سنة الخرى وإني أحمد للمصطفى سيرة جار جاري برم توبا للمصطفى نويت ما يجدد سنة الخرى وإني أحمد للمصطفى سيرة جار جاري برم توبا للمصطفى